yëgat sunu kàddu ci naqar ak tiis waaye ab jullit lépp loo xamante ni dafa dogal dafa dal ci kawam da koy jàpp ab dogal ndax wa ma xadrullah xaq xadri wal ardi jamian te Cheikh Baara ku ne xam na nit la koo xam ne nitub daara la nit ku social la dañ koy tënk rek alxuraan nag dafa am lu mu diggoon am lu mu déyoon loolu nag bu yàlla dogalee mu nekk ca moom ba liy fekk ko ci dañuy sant yàlla baax a baax yëfi nag naqar dina jam lool waaye nag dañ ciy sant yàlla bu baax ndax sant gi mooy àddina saa yu mbir tegal sa kaw dafay jàngatal li war a am sa suba ak li war a am sa ëllëg kon loolu ñoo ngi koy ñoo ngi koy ñoo ngi koy naqarlu te it di ko ñaanal fa mu nekk mu génn ndax du palaasam ñi bon def lu bon fa du seen place rawatina moom te yonent bi sant boo xam ne al muslimu man salamal muslim min yadihi wa lisaanihi ab jullit bu teg mbokkum jullitam loo xamante ne lu naqar la moo mu jël loxoom di ko dóor wala mu jël ngànnaay di ko dóor wala mu jëme leneen di ko jëmale liñ di man nag mooy di ko naqarlu comme fi naqar mën a yem rek te yonent bi digaloon lu néew saa yu nga amee leen naqari na ngeen ko wax ci seen làmmiñ bu ngeen ko mën seen làmmiñ te ngeen am alal ju ngeen ci def ngeen def seen alal bu ngeen amul alal te mën cee def seen doole ñu def seen doole comme amul doole nag amul alal suñu làmmiñ la am ñoo ngi koy dénk suñu borom mu saafaraanu loolee ba fa mu nekk mu génn fa déglu bu waat ci ak ci jàmm ak salaam. bu fekkente li ñu koy toppee mu yoon la jëf jum jëf la bu dee lu ni nit di war a jéggu la ñoo ngi koy ñaanal mboolem ñëpp ñu bàyyi mu des ci njabootam bu dee loo xamante ne nag dara yoon laalew ci na ko bàyyi mu des ci ak njabootam te xam ni fa mu nekk du palaasam